ay ci ñu dem ci yëglekaay yi vox populi la kaddoor yi ubbil yëglekaay bi ci xëtam mu njëkk Abdou Faye de faatoom gi ba tey mën a coolaan ci ne cobbe ci commissariat sam xal bu ndakaaru ginnaaw autopsie bi dëggal ne day moom mi dafa xaru njaboot ga ne déet du ca dal ndijaay ji di Modou ñëw nee kay mënuñoo dégg lu nu mel te sunu doom ji bëgg nañoo xam dëgg lan ma ko fàtt wala bokk nañu gën a ubbi blanquette xóotal ko ci nu mu gën a xóote ci yëglekaay bi di vox populi fekk fa kàddu gi Mari Sagna mu ne dem ba tey maa ngi toog di xalaat waaye xel mënul nangu nag yan jumtuwaay la ku caabi féete mën a am ba mën a faat bopp boppam di kàddu yu Guy Marius Sagna ak Le Quotidien yéeni kaay ni loo ci mën dëgg kay faatuk Abdou Faye gii ca sûreté urbaine jàppaleen nag bëri na ay commentaire de ci faatoom googi nga xam ti am na ginnaaw bañ ko defee garde à vue ni moo taxit de ka moo di Boy Djiné ña ko doon garde à ca ca de jàppal ne ñett ci ñoom ci jamono jooju placé nañ leen mandat de dépôt ndax ca l'enquête bi day fësal nañ ne ñoom ñi seen loxo génnu ci a di Boy Djiné alias point e de dana saf sàpp ne dege wexxaat ne limu jàppale ne de kii di Pape Moël Diop soobu na ngir dagaan baatu askan foofee nee na nag ci atum 2011 de dama doon jàppal tànk njiitum président Macky Sall ci gox boobule gët jéglekaay bi Pape Moël Diop ne loo ci mën dégg mooy damay bañ rek gêner président Macky waaye bés bu dogal ba jotee ngir dagaan baatu askan boobee jàppal ne nag dana am te mën naa bañ a foofu kenn xamul fu muy àgg ma ci laas ne caas yéglekaay bi fekk fa Barthélémy am leen ne day jongante bokk moom lee loo ci mën dégg ma njiitu réew mi noppewul nguur gi parewul ngir amal ay élection maa ngi xaar nag élection yi rek laay xaar billaahi wallahi maa ngi xaar ban app lañ ko nar a amal élection 2022 yi gëmaguma ne dina am de di kàddu yi Barthélémy Dias yëglekaay bi di laas ba tey ci biir yëglekaay bi Malick Gakou di ko feelu ne loo ci mën dégg ngir nag jàkkaarloo ko régime bi soppar ñi ko fa la budde ñu defeenu say te it loolee société civile bi ñoo ci war a joxante loxo l'observateur jox kàddu docteur Cheikh Dieng lépp lu jëm ci jongante ci biir parti démocrate ne Macky Sall mii maa leen wax mooy kan Macky Sall mii laa lu ngeen ci mën dégg jàppale ne de ak am pexe dëgg-dëgg frot dama koo xam min ko lool ni Senghor mii ne woon tubaab bi su su aane moom Macky Sall moomee de jamono joojee ma ngay wër de ma nga woon ca bët gànnaar ca bët gànnaar ngir nag wërngalub koom-koomam googee nga xamante ni ma ngi koy amal jàppale ne de mbooloo mu takku ca jamono joojee ñoo ko textu waaye de tournée économique am mboobee di wërngalub koom bi jàppale ne amul lenn njariñ samay kàddu 24 heures chrono jox kàddu Ousmane Sonko yëg mooy waa M2D ni ki tey jii daañu dem ci place de la nation ngir sàkk ñu bàyyi otage politique yi ñi nga xam ne nguur gi moo leen tekk waaw jox kàddu Ousmane Sonko muy juróom-ñett ci ñoo xamante ni ñi ngi ci loxoy président Macky Sall la ñu bëgg mooy daar daar ñu baleen waaw ci yëglekaay bi moom Ousmane Sonko ne xeex bi day doog a door de àggagul ci cëppaan ndaw ga ci yëglekaay bi ba tey moom Ousmane ko njiital parti Pastef les bi ne loo ci mën dégg la lenn rek la doonul te xajoon ci askan wi ak jafe-jafe koom-koom bi léfa yéene d waaw li it yéeme lool ci soleil yéene kaay les dangers des ovules détox gis ngeen ko noonu de du lu yéeme lool jëm ci nag ci xeet lu yees yoo xamante jigéen ñi ngi koy jëfandikoo ci seen kanam as bu naan lahu xarma yem ca foofee libération yéene ni loo ci mën dégg beneen mbir a ngi saa su ci ne nopp daloo am gan waaye ndax gan gu baax la mukk ci àdduna mbir mu doy waar xew ca Parcelles Assainies xoolal moom mi ngi tudd Cheikh Diagne moom mi de waa police ñoo ko teg ak ndëgg sërëx laa la ko piège tegal ko MB Diouf nekkati daan teg gët xale yi di leen yónnee li nga xam te moom moo di ay vidéo yu doy waar lool te musiba naar laay necca waaye dey ba ñu xoolee téléphone ba loolee lañ ca teg